mbokki Sénégal mbokki réew mi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 yow moom sama confrère nga quoi. waaw gis nga mooy loolu la. naka marché bi. bi ñu ci koom comme dab rek di taxalee di xaar décembre boo xam dina neexam mais waneegu ko daal. yee waneegu ko moom. Hmm. waaw. moom duma ma la laaj ci lenn noo gisee làmb ak yu mel noonu waaye combat yi nga xamante ne jot nañoo taxaw lu mel ne Ama Balde ak euh, Modou Lo nan nga ko gisee. waaw ku su mel ne Ama ak Modou loolu combat la. ñu ngi naan combat revanche mais du revanche parce que ñoom ñaar nekk na combat boo xamante ni Modou Lo ba mu jël roi des arènes bi Pikine la ko jëlee te ku ku nekk xam na ne diggante Ama Baldé ak Eumeu Sène ñoom deretu Pikine gi mooy daw seen diggante tey jii Ama bu retourné dem jëli Modou Lo nar moom yaakaar naa loolu làmb du ko daax parce que Ama boo ko yeewoon tey daan la dama bëgg indiwaat roi des arènes bi Pikine Modou moom bu sañoon moom day yàgg ak moom parce que moom loolu la gis te loolu la digoon waaye partial moo tax ba mu ñëwee contre moom Balla ba ñàkk ko si la jëlwaat Eumeu Sène ngir lan jomam ak fullaam ak faydaam quoi kon combat daal combat bu neex lay nekk daal pour man. Mhm. mais nan nga gisee fi mu toll ni làmb huis clos. non lamb huis clos man ànduma si wala buy am tamit ñaar ni muy amee dina xaw a métti dina métti si nan mooy si waa dina métti si état bi parce que boobaa il faut que état génn moyen wala mu woo maanaam société yu fi nekk entreprise yi ñu dugal seen loxo sponsoré lamb mais lamb ku xam caaju lamb dëgg xam ne lamb supporter la géttu bay dafa neex gars di sotteekoo ndox yi amateur nekk fee de gars di kaaw di weerante diw moo man mbër mi tuus ambiance bi daw ba mu yàgg ñëw jub supporter ñu yuuxu loolu ñu dañ ko namm te loolu dafa neex te bu véhiculoo amee loolu du am si lamb mhm. euh, Bombardier Balla Gaye 2 làmb la loolu làmb ju neex la Bombardier ku nekk xam ne ne Balla Gaye moom Bombardier loolu kenn du ko làmb laamee revanche bu neex la moo o a jaar Gris Bordeaux ak Balla Gaye moo gënoon a jaaru Gris Bordeaux Balla Gaye foofu yoon Gris Bordeaux ak Balla ba fa Balla jógee Modou Lô la amaat daan ko Gris Bordeaux bëri waatagol ba mbër jee ba mu jógee si Balla Gaye nangu roi bi mu jumal si la bëri waat ak daan ko kon bu tourné waat tey di bëri waat ak Balla ku ko daan bala moo bàyyi làmb da lay daanaat Eumeu Sène moo ko daan ñaari yoon te Balla daanu ko kon bu ñëwee tourné amaat ba mbër jee loolu làmb ju neex la la dëgër la dëgër de Eumeu Sène Lac de Guiers njëkkoon nañoo bëre ñu ne am na nu mu demee yaakaar naa bañ bëree waatee wala ñaari si mënta am yëpp Eumeu Sène lañ jox ndam daal tey ñu tourné waat Lac jël fa revanche communication di ko wax loo mais yaakaar naa Eumeu bu dee nit la xam na ne Lac de Guiers communication làmbam noonu la demee moom bu waxee rek da nga naan da mais ba àdduna suuf bëgg combat bi day taxaw di ko xaar parce que wax na ko nee moom bu leerul du dem Lac de kon kooku kuy bëreeg moom ku nekk al foog nga bàyyi ko xel moo tax wax ji teel naa teel naa jaay combat boo xoolee réseaux sociaux yëpp ñu ngi doon xooli nag di teg combat yi wala di teg histoire ak yooyu mais dama ne lamb ju neex la Lac de Guiers moom du cuunewaat ba Eumeu Sène amaan ndam si kawam loolu du ko nangu. maa ngi lay jaajëfal bu baax. waaw maa lay siyaare waat. gaa dugg ci biir gaa yi xool. eh nu ngeen waxtaanee yéen ngeen di waxtaanee lu ngeen di daw. li ngeen di daw. doo ma woon ginnaaw waxal. <laughs> waxal caméra bee ngi eh, tëj wasaare sax yéen a <laughs> ñoom sax yéen <laughs> wasaare sur internet la kaay da nga takk sa non merci da ngay seetaan làmb am nga mbër eh man dama seetaan loolu nga la dama seetaan doo seetaan làmb mm. xamoo dara ci làmb déedéet xanaa làmb du sa sport national sport national la waaw eh, dama seetaan la gara dama li ma rek ngay seetaan yéen a ngi seetaan làmb déedéet non non non seetaan làmb mm. bu ko jëkkëru làmb jëkkëru mbër bu ko xam nga Balla Gaye. xam naa Balla Gaye kay. Balla Gaye ku ko xamul. xam nga Modou Lo. xam naa ko kay. doo ko seetaan te dégg naa Balla Gaye du bëre doo lekk doo naan. alhamdulilah boo déggee loolu. dégg naa. waaw ah. xam naa ne Balla Gaye mooy moom. Ah, ah. gir gir gi jéggit. gir gir gi jéggit léegi bàkkoon bi moom ngay def nii. Ah, moom laa lay bàkkoon. asalaamaaleykum <laughs> non Balla soose la man tamit soose la loolu moo tax ma faral. Ah, maa ngi mën ko. Mm. waaw. ah ndeysaan. yow noo tudd. <laughs> dégg wolof. <laughs> dégg naa olof du ma seetaan làmb. déedéet. waaye jigéen ñi lan moo tax yéen a du ngeen seetaan làmb te yéen mbër yi yéen lañ fi lekkal mbëri askan bi foo dëkk. jàmm gën. jàmm gën. dëkk jàmm gën taxul muy seetaan de. Hmm. déedéet. mais seen koñ am na Siteu. waaw sunu koñ am na. Abu Ñaase am na Fëgal. mais ba tey taxul na kan nga ci bokkal koñ. kenn. Hmm. waaw dégg naa Siteu jegewul soriwul la de. non non moom de. de nangu ñoo wax. <laughs> làmb gi noonu. mais sa waay ana gars kaa ñu dugg ci biir ma ruube leen ana amateur yi ana amateur yi day añ non mais amateur añ kii añ ëpp kii añ ëpp da jël ah xanaa njaay nga sant yow. non man fay la sant lan moo xew. <laughs> ah fay bii nag ceeb rek lay dundee nag ku sant fay ceeb rek lay dundee. macha allah Ndioufène kay ma gën a bëgg ceeb. ah <laughs> ah Ndioufène bi tamit kenn demul bu des de bas gis nga sa mbokk yi yéen ñi sant Diouf gis ngeen yéen a ngi ci añ bi de mais merci bon

ah ñu ngi koy préparer préparation bu bu neex moom wax dëgg moom nun moom xam nga ay bawal bawal lañu te Tafa mooy suñu mbër moom wax dëgg si àlla ñu ngi ci ginnaawam di ko jàppale waaw waaw di ko ñaanal itam suñu borom defal ko ci ndam lu set guy jàpp nañ ni combat yu bari yi nga xamante ne dañuy jàpp ni Tapha bu ko amee day daan day yomb facile ci moom combat yu bari du ci génn lan moo waral loolu diggante mag Ama Baldé gis nañ ko digganteem ak euh, nu mu tuddati digganteem ak euh, ISAP yi gis nañ ko bari na combat yoo xam ne bari na ko ñàkk ko ci loolu. ah waa xaj na dogalu bu yàlla rek combat moom bésub am moom bésub am la waaye bésub ñàkkit moom bésub bésub ñàkk la. xanaa nu xoolaat li ci suñu kanam rek la weesu moom ñu bàyyi ñu bàyyi ko xam ne suñu jaar-jaar foofu la quoi foofu noonu la mënoon a demee. mais nag li ci suñu kanam moom fi ñu fas yéenee tegaat suñu tànk moom xam nañu ko moom. waaw la woon ak euh, léegi moom wuute na. waaw nanu yàlla defal ndam rek. ci kat booy ñaanee na ñor tab bi moo gën lu ñu gësam moom dafa ñor tab bi tafaatin dañ koo gësëm di jërëy moo ko dugal ci làmb. waaw mais loolu la xalaat rek. Tafatin fi mu toj booy ñang booy ñaa toju fa fi mu jaar moom ñeme wu faa jaar Tafatin boo boo xoolee maanaam ancien groupe maanaam maanaam poids lourd yëpp Tafatin na leen Tafatin na leen daan ci laam waaw booy ñaa moom daanut benn poids lourd ay poids laissé wala ay moroomam la daan Tafa nag moom daa daan ci ay moroomam daan ci ay rakkam daan ci ay magam kon bokkuñu palmarès ñun ñoo ko gën a riis palmarès ah ñun ay poids lourd rek lañu daan ñi ëpp doole ci lam ji la ñu daan. waaw moom ba boobu pare ngeen pour huit kilo huit kilos ci làmb noo ko gisee. huit kilo kilos. huit kilos comme maanaam ñu ubbi euh, du ñu ubbi stade bi ñaari mbër yi ñoo ñëw bëre mais kenn du seetaan si loolu noo ko gisee. loolu moom du làmb moom. loolu moom wax dëgg si yàlla làmb moom bu ñu ko waxee moom amateur a tax te amateur moom mooy neexal làmb làmb kay bu fa kenn nekkul comme ñu nuy fubale nii mat mat si nii kenn nekku fa loolu bu dee làmb la. loolu man manu la nekk sax loolu moom man la nekk moom ah pour man boobu. xaw ma mais war naa mën a nekk nga toog yor sa téléphone di ko seetaan làmb ji stade ba kenn du fa ne. waaw mais sponsor yi nag sponsor yeeg yooyu noonu ak ak ak billet billet billet làmb yi ñuy yi ñuy ñuy dagg bu dee sponsor rek moom mën naa ne xaj na fayul làmb noona sa pour cent mais nag bu dee bu dee billet dina dina dina leen dimli bu baax waaw. Modou Lo Ama Baldé. <laughs> ah dimbali ma rek <laughs> doy na doy ma woo ca ci Tapha rek bëgg a wax. dimbali ma rek waaw. ma lay jaajëfal kaay. <laughs> nañ ci marché bi ruube gaay fay. tribunal Caatu Jokkaan Igri Bawol. ñaata jokkaan. écurie Bawol waaw. ñaata combat nga def. Euh, def naa sept six victoire benn défaite. koo daan. maa numéro 2 daan Tafatine bu Tëngéej daan Parisien daan Boy Bawol daan. Euh, Boy Bawol. Boy Bawol euh, la dëkk parce que Bawol lañ bëree quoi daan Samsung bu Bawol mbooloo waaw. Samsung numéro 2 laa mujjee daan la 11 janvier daaw. Stade Iba Mar waaw ku tëggoon grand combat kan moo bëre grand combat bi. Ada Fass bébé waa ñoo ko bëre woon waaw. bi may daanu tamit Ada moo ko bëre moom ak kii contre Onde le Fou waaw. waaw noonu la demee waaw. Ada Fass ñàkk nga ñàkk. waaw waaw waaw yàlla dogal gisee lamb actuellement. waaw lamb actuellement doy na waar trop. Hmm. waaw su ñu ci mënee jàppale daal moom vraiment moo gën. parce que tamit gars yi soxla nañ ko waaw parce que il maanaam temps bi ñu toog bëri wuñ na. te boobu ba nit ñaa ngi yëngal di wax mais mbëri waxuñu dara daal. kon war nañ leen geesu xam nga jàppale leen daal tamit parce que am na ñoo xam ne nii ci lañ yaakaar ci la ñuy liggéey waaw wane nga ni làmb métier euh, làmb sport la waaye am nga métier maa la fekk fi ngay dóoree waar ngay dóor waar. waa dëgg la ñun moom dañuy dañuy ñu ngi ci làmb ji mais dañuy liggéey tamit parce que tàllal loxo daal moom mooy loolu parce que te làmb tamit ko euh, combat dafa métti daal moo waral tamit dañuy liggéey pour suñ amee suñ combat mën a toog suñ benn deux mois préparer ko normal waaw mais du tee dañuy liggéey bu heure entraînement jotee cinq heures ñu wàcc dem entraînement waaw liggéey daal da cee bokk quoi mais toog di xaar lamb ji rek lamb ji rek parce que essence yi nii ñu toogan ñëpp liggéeyuñu surtout mbëri ndaw yi métti na ci ñoom quoi oui. huis clos noo ko gisee ci lamb. non huis clos ak lamb dina doy waar de pour man daal mënoon nañu ubbi lamb ji mais ñu respecté mesures barrières yi comme stade bi tamit mun na jël place yu bari ñu ñëw bu ñëwee laal sel takk masque toog soriwante quoi pour man loolu moo moo gën a yomb daal. seetaan wàcc tuus. waaw mbër yi ñu wàcc tuus mooy loolu yi na mën nañ lamb mais huis ak lamb moom ah dina doy waar waaw dina doy waar trop vraiment. mbër bi de moom mooy loolu mbër moom noo gisee combat Tapha Tine Boy Niang. waaw di ñaan Tapha yàlla ko yàlla may rek parce que foofu moom dañoo far noo du yomb. du yomb ci kenn ñoom ñaar koo ci ne day yomb ci yow da koy nax parce que Boy Niang am na fu mu a dem Tapha tamit dafa war a ñëw jël place am ci làmb ji mais nag foofu moom dañoo far carrément parce que ay bawal bawal lañ day ñaan Tapha daan ko jël bu amul benn werante. ñor tab bi moo gën lu ñu gësam. waaw loolu day wax rek mais bu jour ba moom na taxaw waaw li ko saa wax moom bu taxawee dina xam ne lépp dëgg la waaw noonu la demee. Ama Baldé Modou Lo. loolu combat la combat bu doy war la. Hmm. waaw combat la mën naa mën naa miti trop ci ñoom ñaar ñëpp. Hmm. waaw parce que lamb la daal combat jànq la tamit te gars yi yàgg nañ ko soxla ñoom ñaar ku ci toog di nelaw deux jours entraîné woo sa morom gañe la. tàkk na faa bari. dañuy xeex dañuy xeex dañuy bëre. Hmm. waaw combat boobu ci luy baax la doom am ruq bu sedd. Modou Lo Ama du yomb kuñ ñu la day yomb day yomb da lay nax. Bombardier euh, Balla loolu tamit ba tey làmb la. Hmm. combat la parce que Bombardier daanoon na Balla Gaye mais instant yi Balla Gaye day ñëw pour fayu Bombardier nag day ñëw moom it pour confirmer ne ko maa man mais loo ci man di xam daal làmb la vraiment waaw combat la daal. ay ca la demee. jaajëf bëgg na ak muy gaaw. <laughs> waaw waaw. baax wax. <laughs> eh Lam. foofu ma jël la yow. doo tudd. man pour cent. yow am nga bis bu rëy Ama Baldé. non ragaluma koy daan. du rek daan ñibbi. waaw. waaw passé rek. waaw passé mosuñu nekk ay ragal sa waay. ñëw bëre du daan ko ñibbi. bi dégg naa force baal bis ba kan may xarañ xam nga Modou Lo tëkk ko yomb na te ba nekk si plateau bi du wax lu la neex bis ba leen dugalee si diggéey bi rek ne kan mooy Modou. ji dina yomb ci yéen. la Modou Lo mosul bëri làmb ji noo gisee làmb ji actuellement ñu ne làmb Modou Lo Ama Baldé mën nañ ko def sax huis nan nga gisee lool. non loolu moom bu ñu ko defee rek yàq làmb la quoi pour man ndax lam dañu war a bàyyi lu mu meloon comprends nga. def ko comme dap boo ko paasee ñu waa Pikine ñëw lam ji neex quoi ambiance bi neex loolu mooy làmb làmb mi ngi wax daa war a xumu. ba waroo ay maso yi làmb daa war a xuma loolu loolu mooy làmb quoi gaa yëpp ñëw dégg la gën a neex ci moom Modou. combat Modou Lo Issa Pouye. loolu la ci neex. combat boobu gaa yi ñëpp dañoo waxoon ni Modou Lo daa teel war ko woon jël nangam nangam affaire bi coow lu bëri woon trop Modou Lo ba def bu rëy du moo ko daan ko ñu daw commencé Issa démb jëpp parcelle lañ ko daw boobu ñu Modou dañ xam dama ne bi bi mbëre mbapat lañ commencé avant mi fël la gars yi si moom yaakaar ba nii nii ko tey ñëw na indi ñu roi bi bëri na indi ñu yu bëri vraiment ñu amuñu fayam quoi. jaajëf waaw waaw ñu ngi leen toppal marché bi ba tey de fi mu toll nii de damaa juumut fii mooy Sandaga yaa ngi biir marché Sandaga. ana Talla. Taanan. ñu delloo ziar jëwriñ. maa yaa ngi am jàmm. sant alhamdulilah. noo tudd. Ginaar. Modou Ginaar fii la ñu woowee Modou Ndiaye laa tudd mais Ginaar la ñu ma woowee bëgg ginaar nag. Ah, li nga bëgg nag ku nekk. kenn di ko añee ko reeree. billaahi. ndékkee di ko añee di ko reeree. Ah. dama cee gis njëriñ nag waruma ko ndékkee añee ko dama client yi muy wër. waaw waaw ma ko gars yi jël nag. waaw man kese ginaar kon. Ah? waaw. ginaar sa doom ndey la waaye ñëpp doomu ndey dama koy añee di ko réere laa la wax gaa yëpp xam nañu gaa yëpp Modou ginaar lañ may wax ba ci borom verre yee di ma xool waaw <laughs> mais noo gisee làmb actuellement non làmb essant yi moom dëgg yàlla doxul quoi parce que li tax ma doxul mooy covid 19 bi essant yi nii xam nga feebar bi nii nii nii ñuy wax nii gaa jàppoon nañ ne sax du agsi fii fi ne nii mbër yi fi ne nii essant yi yaa ma gën a xam mbër bu ci nekkul mbër bu mag rek mbër yi ndaw yi moom essant yi moom dañuy taxale instant yaa ngi yaa ngi gis yi nga xam ne ñoo ñu gën a tane sax mooy mbër yi nga xam ne nañ am nañ métier mais mbër si bëri bu ñuy amul métier dañoo sonn làmb ji doxul nañ dimbale ngir yàlla war a suule ñu tëji làmb ji gars yi man a bëre ndax ñun fii senegal fii làmb lañ am waaw làmb lañ am football bi gaa yi ñu ngi football mais nañ ko xool nañ ko waxtaanee defar ko mu nice ndax jeunes yi bëri essence yi ñu ngi dem ci gaal yi. am na am naa ci samay xaritu mbëri yoo xam ne ci gaal yi lañ demoon. ndax lan làmb ji doxatul. doxul moom dëgg yàlla. waaw man làmb laa man Balla Gaye mooy sama mbër. Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 mooy sama mbër. combat bu rëy sa diggante Bombardier. koy duma dama koy duma daan ko. damaa bëgg waa Mbour gépp ñëw mobilisé wu ma ñëw ma duma ko daan ko. billaahi. ma mais làmb jooju est-ce que ko def huis clos. ah mais fi essence yi yàlla na yàlla bëgguñu ko nag dëgg yàlla. ndax lamb làmb moom ambiance ko yor maanaam mbër mi ñëw gis ay supporteram yaa ma dégg yëngal ci kaw gars yi yëngal ci kaw mu yëngal ci suuf Balla Gaye loolu la xam yaa ma génn waa géej waaye gépp génn dar ko ñun loolu lañ xam lamb amul amul ay huit kilos yooyu saam lamb dafa war am ambiance stade bi fees dell waaw le comme le treize janvier bii passé stade Léopold bi may juutal Modou Lo waaw man daal loolu laa bëgg ci làmb waaw lamb day am ambiance ma tam man làmb laay dund dëgg yàlla fii yëpp man ma làmb laay dund waaw na nañ dañ dañ dimbale mbër rek di ñaan Macky Sall nga xam ne mooy président bi nguur gi nañ ñu dimbale ngi jëm seet naa ma ñu tijji làmb ji gars yi mën a bëree dëgg yàlla son nañ bëri son nañ trop baa ma joon korop maa koy seetaan mais àll doon waxee parce dem nañ ba nga xam ne instant yi mooy loolu làmb ji doxatul waaw non amaguma soxna. waaw ah, mais war dëkk dëkk bi dëgër. deux gallons nga war. 2020 bi laa naroon takk kenn yàlla na yàlla waaw yaa ma gën a xam kon yàlla nañu yàlla ate corona. bilaay walaay. mais fi mu toll nii actuellement combat ku mel ni euh, Modou Lo Ama Baldé ban gis-gis nga ci am. non li ma ci gis-gis mooy combat bi li ma ci gis mooy maanaam ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ Modou Lo champion Ama champion la hmm. waaye li ma gis ne doole xale doole ak doole mag te booy bi ma seedaan barki démb Ama Baldé bi ma seedaan barki démb mais doole ju wóor waaw caatu Falaye Baldé mu wóolu naa ko ci combat bi di ko ñaanal yàlla ko yàlla may ndam waaw dama ko bëgg dama bëgg mu teeruwaa bi ndax Falaye Baldé si moom dafay def lu ne waaw doomi mbër la nag waaw yàlla ko yàlla may ndam te damaa bëgg mu dóor ma loo samu daanu billaahi Tafatine Boy Niang Tafatine Boy Niang mu am ko mu am ndam yàlla yàlla Tafatine am ndam parce que Tafatine dafa bokk si làmb te ci damaa dem ba seen reefan màggal dem fekk ko fa na ko champion da nga bokk si làmbu kon yàlla na ko yàlla may ndam si combat bi mu jëm waaw. ma lay jaajëfal bu baax la jaajëfal ñëpp waaw. ok yàlla na yàlla site bi yàlla jëm kanam ngeen gën a am ay kii gën a xam. waaw ah, ok jaajëf. nuyul ma sa doomu nday Ginaar <laughs> mbokki Sénégal mbokki réew mi